tijaani sama waay la camiñal koy wax rek maa ngi Faramareen Gët tey waaye tey yaakaar naa tey damay jël li nga xam ne tey moo di waa kër Wally Ballago Seck les sécurité de Wally mais les frères de Wally Ballago Seck aussi tam mooy loolu tey euh, dafa mel ni ki ma jàkkaarloo ku nekk xam na ko muy Moustapha taalibe macha allah nekk Baye Fall mu ngi noonu moom laa gis tey rek ñu waxtaan ci li nga xam ne activité yi ñu waxtaan ci nga xam ne tabaski yi nga xam ne moo xew ci réew mi rawat na suñu leader suñu patron Waly Balago Seck ci dàll yi nga xam ne moom la ñuy wax polémique bëri na euh, allah ñu waxtaan nag tey lu bare bari activité mais kii xam ngeen ko muy am ni am na mu fas jaar na naka yi tey yaa am baax a baax Agaza naka tabaski bi yaa am jàmm baax a baax a baax alhamdulilah ana xar mi ah muy fi ah yéen moom yéen ay séddale parce que macha allah seen patron suñu patron mooy séddale muy Wally Ballago Seck ñu lay jaar baax avant tout ñu jaar ci tey dañu ñëw rek ci li nga xam ne tak euh, moo di euh, baral bi te commencé parce que xam Wally xam ko tabaski social bi muy def day gën a yokku xam na man naam ci la dëkk social ci la dëkk suñu nelaw social la su yeewoo social la euh, mën naa ne euh, tey tabaski xel yëpp dañuy dem ci wàllu balaa ba seex ñi nga xam ne tey seen loxo jur seen ginnaaw te ñu war a rey xar seen xel dañuy ci bi ñu fekk dara gi nag tey mu fi joxe ay xaar di joxe xaalis lan ngay wax avant tout wàllu balaa ba seex ak tabaski tabaski farma ren waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal di siyaar seen mbokku taal di siyaar seen mbokku jullit di ñaan yàlla yàlla may ñu dugg si tabaski bismillahi rahmaani rahim te gis alhamdulilah rabbil parce que chaque année da ngay def social dimbali jaar mhm. man bu ma ñëwee fekk sax ñu xam dañ fiy fanaan mhm. di koy xaar mhm. nga laaj leen loo soxla ñu ne waale mooy tàmmal xaar te boo ba léegi bu leen woowee ba léegi ñu ngi si social yi ñu ngi la ñuy jox xar ñu ñu war a jox mu ngi la ñuy jox bëggal yàlla di def du gën waale nit la koo xam ne tey jii man dama jàpp ni bu ñu amoon bu mel ni waali wala bu ñu amoon dix semaines ni waali sama xalaat bu gàtt xam nga tey boo waxee ñu ne dafa far. Mhm, du far fekk du far. wax li nga gis la. tey bu ñu amoon dix semaines ni waale kër gu nekk trois cent personnes ak wala cinq cent personnes. jàpp ne ko neex na ndóol dina wàññi mm-hmm. mais boo ko xeetee dee dëgg dëgg dëgg dëgg jamono ñu toll ni nii rek kër waare rek ngay ñëw wala daral waare kas rek ngay ñëw mm-hmm. gis ñu rang mel ni làmb ba tas waaw loolu kon loolu lan moo ko waral mm-hmm. tey jii sama xalaat bu gàtt ku sañoon ñu taxaw sa buntu ko bokk ñuy joxe man tey bu ma sañoon bokk suñu joxe ñu may rang kon Wally Seck ku sañoon ñu ne rang kon Wally Seck yombul nag borom ànd xaay si pinkilam borom dara yëpp a nga fa mais kenn du fëgg seen bunt hmm. waaw nañ bàyyi xel wala ñu gës la moo tax ñu fëgg kër waali hmm.

mu nekk suñu kilifa aussi tam mu nekk kilifa mm-hmm. te bañ bañ bëgg kilifa la nangu kilifa la ci réew mi bàkk Seexul Xadim parce que ku nekk sa kër rek moom sa kër mm-hmm. rek kilifa nga kilifa ku nekk sa kër ba nekk ci mbedd bu mm-hmm. jaam yi waaw bu amul xaaj du génn bàkk Seexul Xadim waaw bu amul xaaj génn waaw bu amul génn barki Seexul Xadim joxe la xam joxe lépp kontaan duggaat këram li nga joxe keneen dëgg la waaw kon Fall kooku Fall kooku lu ñu wax ci moom ndamu Sénégal la sagu Sénégal loolu kay appareil bi boo amee loo may laajaat mhm. ma pare laaj pare nga pour laaj ko ci macha allah mu ngi noonu comme li nga wax rek yaakaar naa loolu warul commencé mais ñu gis ne comme li nga wax euh, lu que lépp da mu gis ne wàll li muy def ci réew mi euh, néew na ko koy def ci réew mi euh, maanaam li nekk ci ndoddam xëjul sax ci ndodd président li muy def ci social président mi yor réew mi sax def ko ci mais gis nañ ne Wally chaque jour que ay nit génn di ko ŋàññ ay ndaw di ko yàq di wax ci moom lu bon en tant que frère en tant que garde corps en tant que ku xam dëgg liggéeyam di grand frère am lan ngay wax loolu. waaw loolu dañ si sawar wax parce que dèjà ñun sax def ñuy tere wax parce que xam na ni ñun ay gaynde lañu te xam nga lan la idal yi xam nga lan la gars yi si Wally. Mm-hmm. du ragal. mun na fajal boppam yéen ñaar ngeen yow ak moom góor kese ngeen daje ci mbedd ngeen xam ne ragal la wala du ragal. la fit kese la. Mm-hmm. mais dafa am lu muy bañ fu mu toll la. yow ndaw gu mel ni Wally Seck fan yow boo ko jàppalewul sama xalaat bu gàtt waroo ko yàqal Wally waxul kenn lu bon Wally fugul kër kenn da ngay wax nit lu bon sax mën na la bàyyi ko ba pare xool bi dafa tuuti gaaw ma de bu nekk ci waaye man dama koy xool ma ne nag man gis naa ko ma gënoon doon bàyyi faat te man gën ma doon bàyyi faat yomb yombul am di barke borom daaw rek la yàq mhm, mais Wally dama koy xool xool ba ñëwoon jóg dafay sonn sonn du wax nit déedéet ah walaay day too day jël àllu day jël coono nit mu koy daw daw daw daw daw daw ba réglé te doomu aadama. ba fàtte alal te pourtant ñëpp a tëj seen kër. Mhm. même ñun waa li ngay tëj kër ju tëj këram. Mhm. sangoon mi ngi si dara ba. Mhm. sangoon mi ngi si dara ba. <laughs> dëgg la képp ku soxla xar. képp ku am xar. wala képp ku am soxla te lii nii noonu yéen xar rek ngeen gis du xar de. waa li muy def par samedi dimanche. <laughs> jaaraam boobu waa li muy def par samedi dimanche. moo raw tabaski. dëgg la sikoor yi. Ah, waaw waaw waaw yow mi ngi may xaalis samedi mi ngi may xaalis dimanche mu ngi maye xaalis mm. kon tabaski bu taxee sama ko dama naan du dara ndax mm-hmm. liy romb li muy def mm-hmm. te kenn gis moo gën a garaataan ndax tabaski dafa fës mm-hmm. mais li mu def moo tabaski lu moo si gën a tuuti tuuti tuuti kon kooku boo koy waxal da nga koy wax lu baax waaye dafa am yaay dëgg la am ñu topp si gannaaw mais mënuñu wax mais ay wa ñu ñëwaat. Mhm. maa ngi lay dégluwaat. macha allah waaw ñu gis loolu comme li nga wax li may ñëwaat rek ci euh, li nga xam ne moom lañ ko ŋàññee euh, instant yi muy actualité muy dàll yi nga xam ne da ko sol mu am ay mhm. ñu ne couleur borom ñaari tur LGBT la. Mhm. bëgguma ci sax jaar quoi euh, mu bëri polémique trop trop trop. tey loolu na ko gisee ak yi ba waa jàmm dañuy plainte ak ay affaire ku ne gën di wax. waaw c'est que xam nga lan moom xamante ne boo ma nee couleur ñu naan comme ñu naan couleur borom ñaari tur yi man yàlla xam leen sax xaw ma këlalu borom ñaar tur man mii de xaw ma ko sax walaay waaw léegi këlalu man léegi lu woon du ma ko xam léegi dafa yomb jéem ma ko sax xam léegi dafa yomb boo ma sax tur tur bi xaw ma LG xaw ma lan LTB xaw ma boo tegee daal mënu ko sax xam sëñ Saliou daal yooyu nii wax noonu mhm. boo ko tegee teg drapeau borom ñaar tur boo bokkuñ sa couleur bu manqué benn couleur rek bokkuñ couleur waaw bu manqué loolu moo ma jaaxal nag waaw mu mel drapeau Sénégal bu manqué benn couleur rek nekkul drapeau Sénégal mais nag te couleur sax dañoo niroowul mais nag man après damay xam la tax man sant yàlla waali moom mel noonu. waaw ah, mbiram moom dafa ànd ak coow d'accord. Wally bu soloon chemise bu xotteeku suba ñu man man la ko. Mm-hmm. daal li muy sonn ñu naan dallu ñaa tur ñaari tur la xanaa kañ muy doomu jullit muy taxaw dina ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu muhammadu rasuulullaah yor course julli di jàpp. nga bëgg a tiinal. def ay di dimbale moomin yi. Idali dëkk bi yàqu na. yàqu na Sénégal. te pourtant xam xam la moom jaaxal. ko yërëm mariage xam la moom jaaxal. Mm-hmm. góor góor yi di sëy si àdduna bi rek. dëgg la. est que gis ñu wax ci. Mm-hmm. les yi di taxaw di di sëy seen biir parce que dégg ñu wax ci. bilaay te gis nañ fan la fan nekk nekk nekk nekk nekk lu ñu war a wax. du daal di waat waxuñu ko ah lu daal wax ñu ngi taxaw si kanam ne mbënd ci. wallaay ñu jàkkoore si moom tiktok yi. Mm-hmm. ñu saaganta saagante ndey. lu bal ñu ngi saag sëriñ si. ñu ngi def lu xam tey ji du pour man daal wàll jar ta wax ndax ku nekk yaa ngi sol ku nekk yaa ngi sol kële bu daal bu la neex mm-hmm. kon damay jàpp ne mm-hmm. loolu ñu wax noonu daal la yoo ñoo noonu du débat nag ma leneen mais loolu du débat parce que tey kenn lekk lekk mu kees nekkul tam bëy couleur couleur boo gisee rouge di nga xam la waaye déggoo njaaraam wax na nee na njaaraam ba wax bu am solo nee na képp ku ubbi sa bataan ah. xoolal boo partee couleur maa ngi dégg wax jooju Ndiaye mu ne ma évidemment boo xoolee boo xool boo xoolee xam foofu fu muy waxee uh-huh. kuy bi sa banaan di nga fekk bleu waaw rouge vert nga bëgg a jox couleur yëpp boo ko dajalee bu jox la kon xanaa drapeau waaw waaw moo jaaxal kay waaw kon Ndiaye Rambo lu mu wax noonu xam la may problème yi wax yëpp xam nga lan la il faut ah. mm-hmm. parce que xam na il faut arrêter mm-hmm. kii doomu jàmm dëgg la ndeyam toog fii sell set ay doomam toog fii di xale yu ndaw di xale yu ndaw xoolal doom yi bi ñu génnee keroog doom de Paris bi dafa yaram dafa daw waaw parce que tamit xam lu ma gën a métti mooy tey jii man mi toog tey jii rek du ma nangu ñu taxaw naan sama doom ñu taxaw naan sa papa lii la dafa metti sa waay adduna nañ wax wax bàyyi wax bu ñaaw yi wàllu yàllaa ko def mu nekk star mhm. yàlla wàllaa ko def mu doon lu mu doon boobu ba léegi ñi ngi wax mais mi ngi gën di xot leer yi waaye ndokk noppi leen ci leer yi dëgg la man dama jàpp ni ku si am looy wax ni wax ma sa sénégalais man waa sénégal sa waxuma leen mhm. gars yi nekk Europe ñooy taxaw di saaga ku leen neex mhm. mais jàpp naa ñi nekk sénégal fii taluñoo di wax nit lu bon parce que ñu ko ñoom ñoo nekk Europe di saaga di wax lu ñaaw te ñemul ñëw taxaw fii hmm. ngal la ko ci am que ni waxuma ne wax nañ ka ci nekk Europe di wax lu wax ju bon ñool fekk diw fi mu taxaw nga ne ko diwul sax nangam daal hmm. ba xool nekk Europe di taxaw si TikTok yi di wax man Amdi Moustapha may waxoon déglu ma yaa ngi yaa de non dama ne ñii nekk Europe Amdi Moustapha ñooy waxoon man Baye Darou ñi nekk Europe. xam di mbaa yaa ngi sóoraale. mani c'est Assim. gars dañuy tax sa photo dañuy tax sa photo de. dama la ne c'est li mu la wax nii c'est. dañuy tax sa photo de. dama la hmm. li mu la wax nii c'est ñu nekk bitim réew nañu bàyyi doomu jàmm di ñu wax wax ju bon. nga xam ñu nekk bitim réew di ñoo yàq dëkk bi. ñi nekk bitim réew di wax wax ju bon te ñemu ñëw Sénégal nañ bàyyi doomu jàmm di ñu wax wax ju bon parce que ñu am nañu xam ñu ngi nekk bitim réew te luñ la waxee lu fa nekkee boo ñëwee fi nga yërëm leen il faut arrêter nañ bàyyi doomu jàmbur jullit la. lu mhm. yee mhm. wax lañ wax ju rafet. am na àll nga ne bàkkaar bi. <laughs> non non parce que tey ñoo di ànd ak ni tey jii ñu taxanal ku nekk di taxanal. waay waale lii la. Mhm. waale lii la waaye ñun ñu di. ànd ak ñoom lii rek moom xanaa ànd ak ñoom di nekk ay gàddu. Sénégal boo ñu xoolee saway boo ñu xoolee nga xam du ñu ànd ak féeg. dëgg la waaye Baye Fall Baye Fall la doon. ay kàkk la ñu. te waale moo leen gën a kàkk te xamuloo ne ne ay kàkk la ñu. su ko waale tey jii dara jëy bu dooroon féeg man Naby du ma na ak moom. parce que ku ma ko xam yàlla lay dund. tey mooy Baye Fall mais booy bi góor xoolal. góor yàlla la de te gaynde la day liggéey day xotti na nga bàyyi bu liggéey di xotti xoolal si nga nee nii daal il faut arrêter baa leen wax ju ñaaw ji. baa leen yu wax ju ñaaw ji def leen lu leen neex jël mais xoolal arrêter baa leen wax ju ñaaw ji jox gune ji dafa am ndey am baay am ay <laughs> doom wax leen wax ju rafet ci yàllaa ko def ni mu def léegi nag ku ko bañ na nga ko nangu ko bañ na nga ko man Amdy Moustapha rakku frère magu Wally Seck may wax mag laa ci Wally Seck mhm. bàyyi leen doomu jàmm dama bëgg ngeen bàyyi doomu jàmm Amdy Moustapha génn def sorti da ngeen di yàq doomu jàmm dafa ñaaw at ba at lay génn bu génne wax rek wax xam ba lay génn ku si nekk loo xam sa kër bu ci nit ñi génn waxoon naa ko ren adduna bi day tax waxee rek yàlla da bëgg sutura bàyyi ko xel bu baax yàlla da bëgg sutura mhm. nañ bàyyi weer weer xaaw sutura bu ñuy xaaw yi sutura jaamur yi nañ bàyyi saal xutu ni saal xutu parce que ku ne yaa ngi ne buuj kenn waxul bàyyi leen gën a jàmbur bi bàyyi leen ko jàmbur te ci émission bàyyi leen mu dox doxam te bàyyi soxla gi ñaan bi mhm. ñu taxaw naan doom de Paris doom de Paris doom de Paris xanaa kañ ñu taxaw et puis man lu ma jaaxal Idali mhm. dafa am lu ma jaaxal muy lan tey waxal sa uh-huh. boo amee nit ak problème bu amul këyit ak signature boo demee devant le procureur du la accepté sa wax mhm. gis nga àdduna këyit la ak signature. Mhm. Wally Seck bu muy signé contrat bi l'avant la xeex bi te Wally Seck day signé contrat six mois avant wala sept mois avant di koy préparé. Mhm. Mhm. tey jii ñaata yoon la fi ren Wally Seck renvoyé ay coow concert ngir histoire keroog bu ñu dem Fatick bu ñu déggee oto bi dafa accidenté. ba desul lu dem jour boobu noonu Kaffrine waaw Kaffrine waaw daf ñu mu ñëw nee na mënu ma tëgg ñoo ko mënoo tëgg mën a asta bi ma dégg Kaffrine kat mënu maa tëgg dem te tey ji moom am woon droit sax annulé concert promoteur bi moom promoteur affaire bi ba signé wàllu contrat moo war a am droit annulé mais moom bu bañee annulé waale xam lan la mën a ñaan promoteur mm-hmm. da ko war a ñaan njëkk nekk la li nga defoon bàyyi man danaa teg plus pour tëggal la tey bu ko tëggoon soirée boobu contrat sénégalais xamuñ contrat bu tëggoon bu tëggoon boobu nag bu ko neexee promoteur promoteur mën na ko porte plainte yóbbu ko ci yoon dëgg day daanu waaw moo yor xaalis sax moo ko defar li mu bëgg fii loo waaye signé moom ngay appliqué sénégalais nag xamuñu loolu moo moo ne moo tax après gis nga lu yàlla def bi ñuy ibbee bunt gars yi daw di xëccoo di buuxati waaw kon léegi ku xool loolu noonu kooku la yàlla àndal ngeen xam ne kon booy bi nea ñaanal yàlla àndal dëgg di kontaan nañ Wally Seck mm. man Moustapha maay wax mm-hmm. wax rakk jàmm mm-hmm. te moom frère suma wax mais dama leen xamal ne la barke Cheikh Ahmadou saa yoo demee ba teg ba arrière sa benn tànk man Moustapha ba bàyyi bul arrière doxal. lan ngay tëjee. dama ne waaye xool ma man maay wax ne nabi doxal boo arrière ma tegg sama tànk. ak ça macha allah jërëjëf ni amoon tey ak Amdy Moustapha li may wax rek euh, moom euh, du génn bu génnee ren ba déwén la macha allah daaw maa ko jëleen ren mu génnaat bu waxee rek xamal ne wax jot na kon jërë ngeen jëf mu ngi noonu. tab tab seen.